dama dégg wal fajri ñuy def débat man espoir bu ne laaj si wër di def débat ñoom Cheikh Tidiane Gomis ci case de tout di wax affaire turu arène bi bees biñ euh, nu mu tuddee ci arène bu yooyu dama ne arène bi moo tudd boppam ñu ngi 66 boobu moo wax maa ngi jóge Casamance ñëw seetaan ci làmba diggante la ni jàmme ak ak Fale Bande école neuf googu foofu la gémboon. foofu ci arène bi. foofu ci arène bi la gémboon kon arène bi am na tur arène bi Fale Bande la war a tudd dama kalaan ci tous sportif. Mm-hmm. ak li mu ki ci ki ki ci ci ci làmba ji li mu liggéey ci ci ci réew mi moom Fale Bande boobu. Mm-hmm. mais suñu parti bi su taxawee Fale Bande moo ko taawal loolu suñ kanam la. loolu dañuy dañ dañ leen ci ñaax ñaax ko autorisé ñaax ko ñëpp yooyu jaru xaccoo jaru da waaye bi moom arène nationale bi moom tudd na boppam. dëgg la moom Fodé Doussouba ñoo fa nekkoon nag ci kër doo Fodé Doussouba. école neuf googu ñun dañ daan dem foofu mu gemb ñu ànd ak moom kon Falaye Baldé tur woowu moo ko moom. ñu mm-hmm. yàlla def saa ñu andi arène ba fa mu doon gemb. bu mu nekk ki diggante dëgg. boobu foofu la doon gemb. kon arène bi li tax mu nekk foofu du hasard. du hasard du hasard dama foofu la daan gembo ñu ëmb ko bu muy daan dut bëkk saar bu muy daan lan li bu muy daan peer bu muy da euh, dama ne euh, naa lemal ay téeméer te du jam boobu faale bandi foofu la daan gembo bi mu ñëwee këram gi yàggut kon aarine boobu faale bande euh, stade boobu faale bande ci yoon fekkee duggul ci politique nag suñ ci dugal politique faale ba ne moom moom turoo bien que nag Fodé moo doon magam moo doon léppam te la naan gëm ba ànd ak moom waaye faale li mu liggéey fii ku ne xam na ko. laa ne ñaan eh, suñu suñu ko mën a may mooy sportif yëpp mooy waa lamba ji yëpp ñoom eh, moom moom daal eh, mu ngi yàlla yàlla moo xam ñun daal loolu moom suñ kanam la nag du loo xam ne dañ koy lambatu.